ak Lac de Guiers ñoom ñaar seen juboo euh, bi nga xam ne Sénégal yëpp ko doon xaar seen Sénégal yëpp ko bëggoon tamit parce que yàgg na loolu ñi nga xam ne ni ñoo doon dox maanaam seen tànk dem ñu gis kii di Lac de Guiers euh, daal di dem ba këñ a Balla foofu sa maris daal di jubook moom ba nekk ko sax di kaf ak moom réew ak moom donc dem naa sax ay bàkku nañ fa donc bi ne si c'est bon nañ dem xool yi complicité bi nga xamee ni am na si diggante kii di Balla Gaye 2 ak Lac de Guiers daal ñëw si waaw mas bi dix la dugal na dix ma dugal dix. waaw kon a la. waaw ah. waaw moom mooy dugal ne yaa ngi doon kat nga ba bi ah kan ngeen barki alxuraan ay boobu gàtt. papa yow yaay dugal. papa yow yaay papa yaay dugal. <laughs> papa ma dugal sax man euh, yàgg nañ di ko wax la de ak ki nga xam ne Balla Gaye depuis ba nekkee jeune ba léegi dugg ci làmb ji euh, doon référence ci xale yépp ba léegi euh, bokkoon li nga xam ne mooy Casamance ñoom ñaar bu ñu fàttalikoo sax bokkoon nañ fi li nga xam ne nii moom moo nekk Casamance en paix. ñoom ñaar ñëpp soo seen dàll wër Casamance pour seen am li nga xam ne mooy jàmm donc jàmm jooju tamit tey ñëwaat na seen ñu doon woy ñoom naan. di Maata. Ama Lac de Guiers Caaya di Ngaata. Ah, voilà mooy seen woy mm-hmm. moom alhamdulilah man moom maa santaat. man moom ndeysaan moomu xam naa war nga ma def seetkat nag. day mu temps yow si def seetkat. waaw <laughs> man man moom war nga maa def seetkat ndax lu ma la wax. tuuti da ngay gis. waaw waaw ça c'est vrai. dama li la woon nanaa bi ñu fay mujjee wax. Mhm. ba ngay wax Lac ay jikkoom yu rafet. Mhm. ak nite. maanaam mhm. la buy xëy di dem mariste kenn du ko fekkee. moo lii laa la waxoon. gis nga Lac de Guiers buy xëy di seeti bàll ñuy kafa ko fokkaree ma ne la woon kenn du ko fekkee. ma ne la waaye noonu la mën a amee bu Balla Gaye di jógee këram maris di di ko fekki géej ay ñu ko fa kare mooy ñun bizarrement booy xool yi buy am au booy xool nana wax yu bon ci ëpp paa yu rafet parce que nit ñi ñun Sénégal nee naa la am na feebar bu nu dal ba pare mooy jaxase ak fexe nit ñi di duuloo mhm. ñun dañ ko bëgg pour ñu am yu nit ñi di wax moom mhm. dañ ko bëgg mais lii xew na lii xew na nit war see taxaw wax lu rafet mhm. mooy li Salif waxoon di saa Cees mhm. mag Balla Gaye yoonu kenn nekk ci su ma nekkee ci làmb bi saa laa su ma toogee fii Salif laa ñoom ñaar ñu euh, ci téye bi ñu ko téye woon la ma ne la Balla Gaye bu xeebee teranga bi ko Lac de Guiers defal du góor waaye it Lac bu taxawee ba xeeb teranga bi ko Balla defal du góor ndax ay mbër bu ñuy ànd naan ñun ñooy waa fii ñoom ñaara ko fi indi ci làmb ñoom ñaar ko fi indi ñoom ñaar tax nañ ñu ne ku bokkul écurie sax dootuñ ànd hmm. ngir complicité bu mag bu ñu doon am ndax bu ñu waree bëri mbër ñaar ñi lay songandoo rek yow ñaari pression yooyu doo ko àttan. déedéet. ndax niñ daan booloowee doon benn say. xameram baa ngi daw. seytaane waxul dëgg nag waaye yàq na xel. waaye xel yi yàquñu ko tey Double Less bëgg na. ki nga xamante ni mooy Falaye Balde bëgg na maam góor gi Njaay bëgg na. parce que ñoom ñi nga xamante ni ñoo fi sooke làmb am def gi ñu fi def lii lañ leen xamee ànd ñun Sénégal ñun dañoo war a ànd ñun tàqalikoo jiguñu ndax ñun bëriwuñu ñun bëriwuñ ba tàkkalikoo jig ñu ñun bëriwuñ di mu moom superficie Sénégal ñaata la la superficie yokk na ne bi may. dafa yokk. <laughs> ah yokk na kay. déedéet tey laa leen di tuuti. E e ah, e ne <laughs> <laughs> me précipite. 196 000 ah 196 000 700. quelle est la superficie du Sénégal. waaw naa de. oui fàtte naa de. waay 196 xaaral de. quelle. jàng bi fàtte ma ko de fàtte recel. quelle est la superficie du Sénégal. waaw. dégg nga. dootu naa la ba pare. borom laa dama lay nokk de. barkeel dootu naa la ba pare.

yow. waaw foog naa loola de cent quatre vingt seize mille quatre cent non fàtt naa loolu moo waxaatoon waxal superficie du Sénégal la. wuyaay. la xagum dinañ laaj ñu ñal ñu ndax man wax na. ndax ñu laaj nañu wax ay ñoom rek bu yàgg ñii ñii di kii. non ñoom rek us bu wax de xaaral ma xool comment ko trouvé. gis nga nee naa la dafa wàññeeku fi mu toll. wàññeeku. <laughs> bàyyi ma ne daa wàññeeku. te moo dëggal fi. Eh, dafay wàññeeku ne 94 amoon na ci. non mais sérieusement 94. amoon na ci us ma xool us ma xool kon daa wàññeeku. primaire la waroon jàng. nee na ma nee na ma daa wàññeeku. nee naa yow sa bu yokku dina wàññeeku. ah loolu dama ne daa yokk ba gis affaire mu wàññeeku. Ousmane. non purée mu ngi nii xam nga naan la ko ginnaaw naa ko non nanaa rey na ma wax la def nee na ah daa wàññi. vas-y Ous continue. ñoom ñaar seen diggante alors mu nekkoon li nga xam ne ni peut-être comme ni ko waxee woon sànq. lu lu lu lu rafet la. waaw waaw dafa rafet maanaam lii nag duñ def lu dul moomoo. ñun moom foog naa wax dëgg fa yàlla ñun. yii yii du fi am bañ teg ñu téesante ñun. ñun ñii Télé Sénégal. tey def people lu bees émission bi du am bañ teg ñu téesante ndax wax dëgg fa yàlla luñ fi wane ci yu mel nii lu rafet lañ ci wax. ak fexe nu ñuy ànd en tout cas Balla Gaye Lac de ànd rek ngeen war a def. Mhm. war leen def leneen lu dul ànd. dafa bëri nag ñoom ci seen bopp muy fii di fële ay fenkat yu leen nekk seen i ginnaaw ak jaxasekat ànd bii tey naqar leen am na ñu toog jooy. am na ñu métti nag tey. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni bi ñu toog. te pourtant am na am na benn mbër bu ñuy wane euh, dama fàtt tur bi euh, moom moom la ñuy wax ne moom moo moom euh, moom moo dox ñoom ñaar seen diggante. moom kooku def na lu rafet Mathieu. Mathieu merci beaucoup Mathieu Pereira merci beaucoup macha allah Mathieu Pereira lu rafet rek lay def lu rafet lay wax boo ko dékkee micro ci lii. boobu bantay yu rafet yooyu la ciy wax. Mathieu boo ko dékkee micro ba liñ naan ànd amul. fu mu toog danaan suñ ñaari mag ñi Balla Gaye ak Lac de Guiers mhm. ñi nga xamante ni ñoo ni jiite teetenu am na ñoo xamante ni biñ gisee lii seen néeg yi lañ toog di jooy parce que neexu leen dañ ci doon bénéfice oo ko bànneexu waaye cent pour cent Guédiawaye mooy diriger yàlla na yàlla defal jàmm ak taysir may leen jàmm ak sa lu ñu wax noonu la cent quatre-vingt-seize mille la ah. léegi nag ay 700 yeeg yi. yàlla na leen yàlla defal tawfeex. nii non dafay 700. ay 200 ba ma la njëkkee laaj 1000 nga la wax 1000 nga xamante ni liberté. <laughs> Eh, eh, <laughs> eh. dama dama ne mille après arrêté mille yow rek hmm. leen. ah 196 <laughs> bi ma kenn war ma leen nana vas waaw Balla Gaye ak euh, Lac de Guiers 2 waaw c'est Sénégal kii gañ tey jii boo demee géejawaay bari na ci ñoo xam ne bëgg nañu bari na ci ñoo xamante ni kontaan nañu parce que lii lañ namoon. Mhm. Euh, ndeysaan maa ngi fàttaliku way wu rëy wa leen. Alioune Mbaye Nder wayoon su bëree daan banlieue kontaan ni doomu ndeyu Lac a Guiers 2 mhm. ko o oh, Balla Gaye donc kin daan daan pil pil pi caaxin looloo ci tegoon kil kil ki caaxin caaxin pin pin bi caaxi na pin ndanki ndanki ndam randan dal tambin bin dal ni ngene cokko ko ko ko la la ko kin tal kin kin cagil saben sagin tam pa dan dan kin kin ka gul gul gul gul no lot ma dégg nag dégg yow no do ni nag maa li ma tokk rek. nee <laughs> li ma tokk rek naa ne ma nii heureusement tey Ousseynou nekk su ma wooyee kenn ma awul ma koy waaye awul ah! man. billaay demal donc euh, ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi rafetlu lii ah man moom euh, sincèrement dama cee bëgg parce que damaa xam euh, ñoom ñaar seen xol. parce que même bu dee jegewuma leen trop trop trop trop waaye am na as lu ma ci xam comme xam nga. Mm-hmm. xam nga nag ku wax rek feeñ. waaw mais wax dëgg yàlla ñoom ñaar ñëpp ay ay ay cœur la ñu yor que ce soit Papis Balla <coughs> ñoom ñëpp donc wax dëgg yàlla lii lii lii wareef la. Mhm. ñaar ñu mënta tàkkalikoo moom dañuy ànd saa bu ma toogee mhm. fii dama koy wax ñaar ñu mënta tàkkalikoo dañuy ànd rawatina nag ñoo xam ne dañoo fësal seenu ànd ca ba ànd jafe ma ñoom ñi bi ñuy ànd moom mi ngi koy nooree ni mi ngi koy suluñe léegi ne ñun ñoo bokk géejawaay wala ñoo bokk nangam lu ñu bëree ñoom ñi bokk nañ ci ñi ko fi njëkk a indi. Mhm. ay ci ñeneen ñi doog a ñëw ñii naan diw laa xaritool du ma moom nangam ak nangam kon ñoom ñi exemple lañu ci képp koo xamante ni yaa ngi yaa ngi yaa ngi def dara te mu leer la ni. am na ci ñoo xamante ne dañ naan la en matière de business y' a pas de sentiment y' pas de famille mm-hmm. alors que ci la bokk ñoom bokk nañ ci ñi boole làmb ji nii damay am principe dinaa bëri dina am samay million waaye du ma ñàkk ay principe loolu nag doo ko def oser def ko ba noppi leneen lu ndaw di ko yàq jàpp naa ne sax seytaane la woon rek ak lu mënta ñàkk parce que nag bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk des fois dañuy laale waaye comme ni ko tubaab di waxee tout est bien qui finit bien nañu nañu nañu gën a jàppoo xam ni lu dul jàmm jàmm ko gën te jàmm daa gën jàmmaarloo ndax boo ñemee jàmm ak jàmmaarloo di nga xam ne y a une très grande différence donc yàlla yàlla na yàlla saxal ànd bi euh, waaye gis naa keneen ku ci manqué euh, waaye duma wax xëy na kooku dinañ ko gis tôt ou tard. gis na keneen ku ci manqué waaw. d'accord kon yàlla na ñëw ak jàmm. waaw na ñëw na ñëw ak jàmm. Ah. Euh, ñoo ngi ñaan jàmm si ñoom ñëpp. Mhm. moo xam Balla Gaye moo xam Thiat sa Thiès moo xam ki nga xam ni mooy la de gars ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk moo ngi noonu alors bu ñu paree foofu nañu waxtaan si li nga xam ne nii tamit moom lay tëjee euh, mu nekk diggante Dieyna Baldé ak ki nga xam ne mooy Bril gannaaw ba defee seen mariage ba pare def nañ benn interview bu am solo euh, ki nga xam ki ko defal mooy ki nga xam ne mooy Fifita ñu koy nuyu de passage Fifita interview am na solo macha allah c'était trop top trop nice même